ahaaba lismin wa fi'lin nahwulan ahaaba wa lismu qad xusisa bil jarri kama qad xusisa al fi'lu bi ayyan jasima farfa bi dammin wansiban fadhan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasur wajisim bi taskinin wa gayra ma sukir wa gayru ma sukir yanuubu naxwu jaa axoo bani namir mm, warfa mm. bi waawin mm. wansibanna bil alif wayrul bi yaayin ma min al asmaa léegi al i'raab ak i qaajam ak seeni tàbbiwaay ak i màndarga moom la lay mu ne wañaalan na nga def arrafa rafa wan nas ak nasab mhm. iraban ñu di irab mhm. lismin ñaar lisim mhm. wa fi'lin ak fi'l bokk na ci aqsamul irabi rafa ak nasab rafa ak nasab nag ku ci ne dana am ci lisim ku ci ne dana am ci fi'l loolu lay ne naxu ñu doog waxta jënga ne ni yow mu ne lan ahaba duma wek xeydan si ahaba fi'lu la yaa ngi ko nasab kon kay fi'l dañ koy nasab saydan kii mafmoo la lismu la ñu ko nasab kon kay lisim dañ koy nasab ak boo ne saydun yaquumu saydun lisim la yaa ngi ko rafa yaquumu fi'lu la yaa ko rafa kon kay lisim ak fi'l dañ leen rafa wañaala na nga def ar rafa rafa wan nasba ak nasab iraban ñu di irab lismin ñaar lisim wa fi'lin ak fi'l naxwu ñu la waxta jëngane lan ahaba ahabu fi'lu la ñu ngi ko nasab ndega ndegeg la walit mu lisim nag mhm. xaqu si sa jagalef na ko mhm. bil jarri ci jar mhm. bu dee jar nag ci lisim rek lay am waaye doo am ci fenel ndax jar dafa diis fenel diis ñaari diis duñ leen boole kama xaqu sima ni ki jagaleefee al fi'lu fenel bi ayen jisima cig jasam ni nga xamee ne buy jasam ci fenel lay am doo am ci lisim jasam dafa hoyof lisim hoyof ñaari hoyof waruñ leen daje ñeent xaj yaa ngi nii afaas nasab lisim ak fin ala ko bokk mm-hmm. buy jar lisim a ko jago mm-hmm. buy jasam fin ala ko mm-hmm. walit mu lisim xat ku si sa na ko bil jarri ci jar kama xat ku si sa niki jagaleefee al fin lu fin bi ay yan jasima cig jasamu lii mooy aqsamul i'rab yii mooy tani waaqi kon ñu dem ci alamatul i'rab su ko defee rek ñu jëf buy cosaan rafa ci lam la cosaanoo kon la mu war a nekk mandargam mm-hmm. nasab ci fata la cosaanoo mm-hmm. kon fata mooy nekk mandargam nasab mm-hmm. fekk ñu ngi jëfandikoo cosaan jar ci kasra la cosaanoo kon kasra mooy doon mandargam jar fekk ñu ngi jëfandikoo cosaan jasam ci sukkoon la cosaanoo kon sukkoon mooy doon mandargam jasam fekk ñu ngi cosaan moo ibnu malik mu ne war fa nanga rafaaye halal asli bi damin ci lam rafaa ci cosaan mm-hmm. lam ma lañ koy defee mm-hmm. ndax lam ma ci la rafaa cosaanu mm-hmm. wasim na nga nasabee ci cosaan fataan ci fataan jaritam ci cosaan fataa lañ koy defee nasab ci cosaan fataa lañ koy defe ndax fataa ci la nasab cosaan wajur na nga jaree ci cosa mm-hmm. kasran ci kasra mm-hmm. jari tam ci cosa mm-hmm. kasra lañ koy defee eh? ndax ci kasra la cosa loolu la ibnu malik de misal ka eh? ni ki waxta jënga ne ni ki yow mu ne sikrullahi fàttalekug yàlla abdahoo jaama ya suru dana mu bégloo jaam mu ne yàlla bu fàttalekoo jaam jaam ba kontaan fàttaleku fàtte koy waral te yàlla du fàtte mm-hmm. wante waxin la rek mm-hmm. mooy bu la wanee mbaaxam xéwal la mm-hmm. rek da nga kontaan xam nga sikkuru kuñ rafaal lamma ne ci cat allahi kuñ jar kasra ne ci cat li kuñ nasab la fataa ci cat kon gis nga misaal ci rafaaxee lam nasabee fataa ga rek kasra loolu moo tax dégg nga mm-hmm. wàccil na nga jasamee ci cosaan mm-hmm. bi taskinin ci sukkoon mm-hmm. jasam itam ci cosaan sukkoon lañ koy defee ndax ci sukkoon la cosaano nga ne daan lam yax ko si lam yax xam ci ay makka ki sukkoon la cosaano moo tax alamatul i'rab yi ñetti makka yi nga xam ak sukkoon ñoo ko war a dox fekk ñu ngi cosaan soo gisee lu may lii nag mm-hmm. xamal ne la du cosaan mm-hmm. te cosaan la fi wutoo mm-hmm. maanaam waxeeru maa lu dul li nga xam ne du kera tuddeef na ko loo may liñ la waxal nii yanoobu dana mu huutu amma du kera woom liñ tudd al arab mooy arabe bil harakaati ci maska wa sukkoon ak sukkoon lu ko may xamal ne moom la huutu ndax wu niroog waxta jënga jaa dikk na mm-hmm. axu bani namir mm-hmm. mbokkam banu namir mm-hmm. axu mooy faayel jaa tey biñ koy rafaa waaw lañ ci def xam nga liñ ko inrabee du màkk xamal ne waaw gi lam la fi wuutoo bani mudaf ilayhi la tey biñ koy jar yaa lañ ci def yaa du màkk du sukkoon haraf la xamal ne yaa gi kasra la fi wuutoo gis nga baax a baax mm-hmm. léegi nag barab yi ñuy cosaan mm-hmm. moom lañ la bëgg a jàngal mm-hmm. ñu ngee dalee yow ci li simi juróom wala simi juróom benn ndax buñ moyee cosaan ci boor bu ne itam a ah, jege nañ ko ci boor bu ne léegi rek maam gawa jànkatu bi moom la lay waxal mu war faa na nga rafaayee bi waawin ci waaw niyaabatan ci huutu hani dammati maa li nga xam ne asifu danaa ko melal asmaay ci nisim mm-hmm. yi am na nisim yi may wax ci kanam mm-hmm. bépp bu ca bokk rek mm-hmm. boo koy rafaa yaa koy rafaayee waaw waaw gi laam nga la wuutu wan ban na nga nasabee ban na nga nasabee bil ni yaa batan ci huutu anil fadaati maa li nga xam ne asifu danaa ko melal mel asmaay ci am na lisim yu ñëw si ci kanam. Mm-hmm. bépp bu ca bokk. Mm-hmm. boo koy nasab liim nga koy nasabee. Mm-hmm. liim nga fataata bi wuutu. wajru na nga jaree. biyaa in tiyaa. li yaa batan ci wuutu. anil kasrati. maa nga xam ne. asifu danaa ko melal. min asmaa yi ci lisim. am lisim yu ñëw si. bu ca bokk. soo koy jar. yaa nga koy jaree. yaa gi kasral la wuutu. danañ danañ leen indi. par benn par benn. warfa nanga rafahe hmm. bi waawin siwaaw hmm. wansiban na te nanga nasabe hmm. bil alifi silim wajru te nanga jare bi yaayin siya maana looy rafahe lam de ko nasabe liw de ko ya mu xanaa maa li nga xam asibu bu ko mel min asmaa yi ci disim ki diñ may waxtu ci kanam